bu fekkee aujourd'hui gouvernement bi mi ngi pousser toujours di interdire les manifestations pacifiques parce que des manifestations pacifiques su nit yi amul cette possibilité de de de s'exprimer exprimer wu ci ci dal vraiment marche pacifique la ñu waxoon marche silencieuse day permettre rek les gens puissent argumenter et aller faire d'autres types de de, de formes de manifestations qui vont être beaucoup plus violentes donc vraiment ñun ñu ngi koy naxarlu maintenant comme ñun ay pacifistes lañu ay républicains lañu ni préfet bi wax on va retourner euh, tey dinañ ci xalaatal bu gaaw essayer de voir ban beneen itinéraire lañ koy proposer donc ñu ngi xalaat defaat une autre proposition pour le pour ajuma bi incha allah donc je pense que tey aussi dinañu programmer benn conférence de presse très probablement dans l'après-midi autour de 14 heures je pense que information bi dinañ ko préciser pour au moins essayer euh, defaat une une marche parce que marché bi aussi nañu xam ni c'est juste benn point la si suñu plan d'action parce que tey am na aussi mouvement de grève avec les syndicats de l'enseignement donc tey ak suba am na ay grève et aussi semaine prochaine am na aussi euh, euh, d'autres point de plan d'action yoo xam ne dinañ ko dérouler. kon marche bi du amati. marche bi en tout cas pour ñun du amati parce que quand même euh, comme li ñu wax ñun ay pacifistes lañ ay républicains donc bu demee ba autorité décider lu am dañ ci dañ koy nangul. Euh, déjà ubbil nañu bunt parce que nee nañu nañu ñëwaat proposer ko beneen itinéraire donc euh, je pense que ak groupe bi dinañ ci réfléchir waxtaan ak préfet i xool ban itinéraire boo xam ne ñoom xalaat nañ ni moo leen dul euh, moo dul créer problème ci dëkk bi. Mhm. mais li ñu jàpp nag mooy mooy ñun vraiment. marché ba ngeen wootee àjjuma ñetti bakkan tëdd nañ. xam nga loolu tam. déedéet dama bëgg aussi ñu clarifier loolu xam nga aujourd'hui dafa am initiative yu bëri aar aar sunu élection vendredi. appel bi mu defoon c' était pas pour euh, le rassemblement à la place des nations et loolu aussi dañ koy gis parce que fi mu nekk nii même suñu charte graphique aar sunu Sénégal utilisé même. du woote woon ajjuma du yéen woote li ñu woote woon. ajjuma li ñu gis ci dëkk bi kat moo woote. moom laay leeral parce que fi mu nekk nii ñëpp a utiliser concept aar sunu initiative bi concept bi et donc même les politiques l'utilisent donc da ngay gis si réseaux sociaux yi ñëpp ne aar sunu sunu élection moo woote vendredi li ñu woote woon mooy les la prière. demoon nañ ci jumaa yi pour julli fa ajuma et les imams qui font partie de la ligue euh, association des imams aussi defoon nañ ay prêche donc y eu au moins une quarantaine de mosquées yoo xam ne imam yi defoon nañ prêche pour un peu pousser les populations ñu jël conscience ci situation bi dimanche y avait eu aussi au niveau de l'église au marché de l'Ouganda un rassemblement donc vendredi li ñu woote woon c'était donc ces journées de prière maintenant on ne yenn débordement yi ak les mauvais usages de aar sunu Sénégal mais bon on va essayer de réfléchir et trouver benn moyen ba nga xam ne pour que les messages de aar sunu élection mu gën a mu gën a leer. mais boo leen yëkkiwul kaddu naan lii du ñun dañuy jàpp ni yéen waaw loolu beneen débat la xam nga la la discussion sur ay du ñun du ñun mais ñun joxe nañu suñu message parce que ñun li am solo mooy ñu joxe suñu message je pense que aujourd'hui ñu ngi travailler sur l'identification de la communication dans Aar Sunu Élection je pense loolu aussi gis nañ ko c'est important et donc ce qui s'est passé vendredi dafa nekk loo xam ne jàngat la pour ñun ba nga xam ne léegi dinañ xam ñan ñooy porter le message de Aar Sunu Élection et que yan plateforme aussi la ñu développé pour que nit ku bëgg xam les vraies informations de Aar Sunu Élection mu dem si plateforme yi wala mu dem ci nit yi nga xam ne identifié nañ leen ci boobu hmm. wàll mais euh, euh, docteur Bousso euh, xeex bi da ngeen cee laawaale lu bëri. Mhm. ba ci njàngum xale yi. Mhm. ay syndicat jàngalekat euh, fekk si leen si. Mhm. banque seen loxo bañ a jàngale xale yi ñoom lu seen yoon ci mbirum élection mi mel ni rek yow miy fajkat nga ne euh, malade tëdd di waaj a euh, faatu nga ne duma ko faj ndax damay ñaxtu report élection est-ce que loolu tam yenu na maanaam. déedéet ah, déjà ma clarifier aar sunu élection du du amul rek syndicat santé syndicat enseignant yi. fi mu nekk nii syndicat santé yi dugg nañ ci syndicat médecins yi dugg nañ ci syndicat paramédicaux yi dugg nañ ci euh, les acteurs porteurs ñi ci dugg euh, commerçants yeeg industriels yi donc mi ngi élargir donc dans les moyens de lutte c'est comme moi j'ai été secrétaire général de syndicat des médecins et benn moment doon nañ wax ne est-ce que ñun médecins am nañ droit grève mais c'est notre loolu rek la am comme moyen mais en sachant que dinañ def ba nga xam ne du am ce qu'on appelle des dommages collatéraux parce que même bu docteur yi di grève urgence dañ koy jël en charge maintenant pour les enseignants amul beneen formule du yàq enseignement bi mais c'est juste poser des actes ponctuels docteur leen wax loolu quand même toog jàng bañ a jàngal xale yi euh, nga ni du yàq njàng mi ah kay. déedéet bu dee benn minute sax ñu bañ ko jàngal xale yi quand même. mais xam nga dafa am benn une forme d'expression y a pas comme on dit munoo on peut pas faire mënoo defar sa omelette te tojoo nen. la muy jur mooy la muy jur mooy bi. yéen da di mujjee aar euh, aar ay élection te yàq njàng mi aar aar leen nit ñi. non fi ñu jëm moo gën a graaw fi ñu jëm. Hmm. fi ñu jëm sa à dire aujourd'hui bu fekkee ñëpp la ñu seetaan situation bi moo gën a graaw ba ñu am njiitu bu ko xam ne heure bu ko neexee li ne tey ma toog. tey ma yokk sama mandat. parce que tout simplement am na régler moom te bañ cee dugal xale yeeg seenum njàng quand même. que aujourd'hui donc mun nañ continuer en disant que bu syndicat de la santé yi dugg bu acteur porté dugg bu ñeneen dugg donc c'est une question de responsabilité et enseignants yi c'est des gens responsables man en tout cas dans le cadre de aar sunu élection syndicats yi ñi ngi fa ñi ngi waxtaan mais ñi ma gis c'est des personnes extrêmement responsables xam nañu seen responsabilité et xam nañ aussi seen rôle dans la société fi ñu toll nii amul benn pàcc ci dëkk bi koo xam ne war nga toog di seetaan li xaw. mais pro maintenant nag da ngay assumer ses actes. waaw justement parce que ay élection rek moo mën a mobiliser nit ñi euh, ñu mel ni yéen euh, waaye yeneen coono yi askan wi nga xam ne directement ci dundu askan wi la kenn du mobiliser wu bu dund gu yokkee njëgu marché bi seer xale yi jël gaal gi di dee ngeen toog fi ngeen toog. mais ay élection mooy mooy tax ngeen mobiliser paralyser dëkk bi syndicat jàngalekat ak syndicat fajkat ne duñ duñ ko nangu mais yéen lu tax yitte woowu leen dundu askan wi di yitte woo ay élection non d' accord ma ci loolu parce que boo xoolee aussi quand même euh, syndicat yi for euh, forum civil. waa àll baa ngi nii seen i forage taxaw na ñu mar naan mënuñoo faju mais ça ne mobilise personne mais ay élection non moi je pense que c'est li nga wax dafa dafa dafa excessif parce que quand le forum civil ak syndicat yi se prononcent sur la situation du pays je pense que difficulté yi am yëpp quand même nekk ci syndicat yi ñu nekk forum civil ak sénégalais mais docteur loolu nag moo jaral paralyser dëkk bi mais pas ay affaire politique déedéet c'est c'est différent parce que am na noo xam ne boo ko utiliser comme moyen de lutte xam nga moyen de lutte ça dépend si incident bi am xam nga mënoo ne euh, dëkk bi dafa chair dafa am difficulté nga ne bon léegi nañ ko gën a parce que tout simplement dinga nga empêcher nit yi fonctionner nit yi liggéey donc les stratégies de lutte dépendent du contexte mais n'empêche que je pense qu'on a toujours entendu le forum civil on a toujours entendu yàgg nañ dégg syndicats yi ci les problèmes maintenant bii dafa nekk problème boo xam ne dafa touché ñëpp parce que euh, vraiment au fond c'est-à-dire suñu réew la la la la touché et donc c'est ça a hier maa ngi déglu ay waxtaan ak en enseignants ñu ne même ñoom situation bi daleen leen ñu tase que c'est presque une première que seen groupe syndicat yi dajalo et donc pour dire que problème bi daf leen util ñoom ñëpp. naa ñu doon xeex reprise de cours en présentiel surtout ci université duñ ko waxati tey de. ah pourquoi duñ ko waxati. ah kuy grève kay ça veut dire que. Ah, mais xam nga defuñu enseignants yi defuñu grève de d' semaine ou deux mois c' des grèves ponctuelles et donc ça n' empêche pas que les activités puissent continuer donc pour man le système de l' enseignement n' est pas n' est pas bloqué. mais est ce que blocage bi nga xam ne nam ngeen ko parce que déjà nee nañ ay commerce beeg à travers ACIS syndicats yi à travers euh, les syndicats d' yi nga xamante ne dañu observer benn débrayage si la situation persiste est ce que da ngeen gën a euh, nam gën a baral mbir mi. mais obligatoirement xam nga il faut que qu'on qu'on nu ñu mun a exprimer ñu mun a wax suñu xalaat aujourd'hui amuñu benn plateforme boo xam ne mën nañ ci exprimer wu à part effectivement cette communication à travers les médias mais bëgg nañ manifester ñu interdit ñu ko mais effectivement que bu ñu bëggee que nguur bi déglu ñu dina am yeneen mesure yeneen mesures yi incha allah semaine prochaine ñu ngi ñu ngi xool ci mbirum ville morte et boobaa syndicat yëpp ñooy booloo bokk ci xeex bi. ñi ànd ak yéen. ñëpp comme ni ma wax enseignement santé euh, portuaire et cetera les commerces parce que stratégie la c'est une stratégie de lutte et donc stratégie nga xam ne yëpp loi may nañu ko dinañ ko jëfandikoo et c'est des stratégies pacifiques. Hmm. Euh, waaye jamono yi ngeen di taral seen xeex euh, politiciens yaa ngi diil euh, le mot n'est pas de trop parce que ñi ngi wax waxi dialogue am nañ ñu ca fas yéene dem euh, ñi gën a radical ci opposition bi sax danañ ca dem ñu ngi ne ñu ne ci kaso bi na leen génnee gars yi war a jëm ci waxtaan euh, war a xool ñoom lu ñuy régler seen problème ñoom politiciens yi yéen euh, fi ñu toll nii dugg ngeen ci mbir mi boo sàggantul ngeen des ca de. waaw mais dinañ ko assumer parce que ñun li ñu li ñu amal solo mooy askan bi cest à dañu am benn combat combat bi mooy respect du calendrier électoral cest à ñii di jaloo neexee ñu dem dialogue je pense que dinañ après jàkkaarloog askan bi pour expliquer leen naka nan la ñuy deal effectivement c'est un deal ñu ngi wax ci wàllu amnistie je trouve que loolu c'est c'est même pas respectueux dañ nekk dëkk boo xam ne damay wax ni kenn amul responsable c'est-à-dire lépp loo am rek on trouve pas responsable et aujourd'hui parler d'une amnistie loi d'amnistie ci li xewoon juin wala li xew ci mars en tout cas man sam bopp man si scandaleux parce que ça veut dire que yàgg nañ ko wax mais aussi pour moi nañ def lecture bi c'est pour qui cette loi d'amnistie c'est pas pour les gens qui sont en prison ou les gens qui sont morts mais c'est pour ñi nga xam ne ñoo yoroon le pouvoir parce qu'aujourd'hui des gens sont morts par balle il y a eu des des, des brutalités il y aura pas de responsable donc je pense qu'il faudra vraiment ñu réfléchir et et man appeler les policiers aussi bien réfléchir et pour bi mooy il faut que le peuple wan politicien. yàlla mais li mu wax mooy pour man tournant la fi mu nekk nii pour population bi ñu wan les politiciens nos que ñun ñoo leen tànn c'est que waruñu il peut pas se permettre di def lu leen neex ci dëkk bi loolu waruñu ko nangu et il faudra que chacun ak ni nga ko mënee. loolu pouvoir de l'opposition la de. amee ah, mais pouvoir ak opposition moom xam nga ñooñu pa wàcc pàcc bu ndaw la. ñooy deflante seen biir ku ne fa nga féetee fa nga yëngu rek ñi nekk ci opposition bi jamono ji bu ñu nekkoon ci pouvoir bi li waa pouvoir bii di def la ñuy def. waaw yéen ñi nga xam ne nee ngeen da a neutre ay société civile ngeen. Mhm. foog ngeen comprendre loolu xamal ko tamit askan wi. waa moo tax loolu mooy mission bi moom laa wax nee naa aujourd'hui prise de conscience morale c'est-à-dire aujourd'hui bi xam ni ñoom ñooy joxe pouvoir il na waruñu subir ñi nga xam ne ñooy gouvernants yi Et donc, c'est dans la sensibilisation. Et je pense que c'est, comme on dit, euh, à toute chose malheur est bon. donc li xew nii je pense indi na benn prise de conscience boo xam ne dina tax nit yi am beneen xalaat ci dëkk bi naka la war a doxee. mais yéen est-ce que peuple bi yéen àndal wala ñi nga xamante ñoo di woy politique yi ndax woy politique yi bu ñu wootee ci la ñuy gën a mobiliser wu yéen boo leen wootee aussi politiciens yi ñëw accaparé ko. non c'est-à-dire caafas. ñi bokk ci parti politique je pense que aussi bien ñi bokk ci parti politique ci bokk ci association je pense que mat ñu 10 pour cent de la population sénégalaise aujourd'hui euh, nañu nañu autoriser une manifestation ils vont voir maintenant que les politiciens veulent ñu bëgg utiliser plateforme bi venir presque bëgg ci bokk par force ça on le comprend ñoom seen stratégie la mais ñun suñu stratégie mooy pas de politique maintenant suñu defee manifestation bu ñu ñëwee ben on duñu leen interdit ñu ñëw mais plateforme bi amul parti politique Hmm, gis naa ñu ci nekk dañuy politique aussi ah. non non non seen naa leen ci de. non non non non c'est différent parce que xam nga dafa ay organisation quelqu'un peut être membre d'une organisation syndicale et être politicien. ma c'est son organisation qui est représentée man maa ngi ci aar sunu élection mais en tant que personne indépendante man nekkuma ci parti nekkuma ci organisation nekkuma ci association nekkuma c'est pas non le problème c'est que ñun ñi fa hmm. quand même ay responsable je pense ñi ko jiite les professeurs Babacar Gueye Malick Diop Kam ak euh, buñ toutes ces personnes qui sont dedans mais après tout est tout, après tout est yow gaañu Awa Marie Coll Seck nga moom démissionné na <laughs> euh, temps yi xam naa waxtaan ngeen ci ak ne xaaral nu dóorandoo euh, waa ji. non non ça n'a non non ça n'a absolument rien à voir Awa Marie Coll Seck maa ngi koy de passage sama maître la sama mentor la moom je pense que bu jëlee voie am option am la jël moom moo xam lu tax mu jël ko et je pense que joxe naa argumentaire am man je suis un citoyen simple man dama toog sama kër pour juste expliquer comment je suis rentré dans toog samedi sama kër déglu président wax mu na xarima ma tweeté si je me suis rendu compte que mënuma juste toog sama computer wala sama smartphone di ci wax j'ai appelé le professeur Babacar Gueye qui est dans la société civile j'ai dit mais prof comment je peux faire pour venir aider et c'est comme ça en tant que citoyen simple et man je suis pas quelqu'un qu'on manipule ou euh, qu'on téléguide euh, au, même moment cette société civile semble être divisée docteur ñii ñu ngi ci seen plateforme bi ñii ñu ngi nekk ay facilitateurs waaw ça quand même c'est un constat ñoom Alioune Tine ça c'est un constat man j'avoue que je les fréquente depuis pas longtemps et je le dis des fois vous avez des pratiques de politiciens en fait quoi dans la pratique c'est-à-dire c'est c'est am na ñoo xam ne il faut qu'ils se fassent entendre am na ñoo xam ne il faut qu'ils se fassent voir c'est le période bi la mais bon il faut l'accepter je pense qu'il faut ñu accepter aussi que nit yi bokkuñu il y a des différences tout le monde ne peut pas aller dans le même sens et aussi ñu jox leen un crédit positif ñi nga xam ne xalaat nañ ñu peut-être beneen voie la ñu war a utiliser donc ñun dañ koy respecter mais li am solo mooy ñun dans le cadre de Aar Sénégal ñoo am suñu suñu yoon boo xam ne moom lañuy jaar et puis ku si ñëw ñu ubbi nañ ñëpp ku bëgg a ñëw aussi ñëw mm. liggéey ci Abdou Diouf ak Lay wadd seen communiqué démb bi ñu bokk signé ndoo ko di sàkku waxtaan ak jëm nag ci élection 15 décembre nu ngeen gisee taxawaay boobu gannaaw yéen nee ngeen 15 décembre xalaatee su ko 25 février la am waaw man personnellement ñun déjà bon lu ñuy rafetlu man en tout cas du ma lu ma lu may rafetlu am naa ci si jàng jàngat ci ci forme ak ci forme ci forme bi bi njëkk mooy dama ci gis benn point positif point positif mooy je pense que Macky Sall fi mu nekk nii président Macky Sall il est en mauvaise posture parce que président Macky Sall bu demee bay woo Abdoulaye Wade ak Abdou pour ñu bindal ko lettre pour mun ko jàppale. Ah, est-ce que noonu ah, ma dem ci hypothèse yi rek. pour man ça peut être maa ngi ñëw maa ngi ñëw donc pour man ça pour man mooy hypothèse bi gën a probable je suis pas très sûr que c'est le président Diouf qui a appelé euh, président Wade pour lui dire il faut qu'on aille sauver le soldat Macky je suis pas très convaincu que Wade puisse appeler Diouf pour lui dire qu'il faut qu'on aille euh, sauver le soldat Macky donc euh, deuxième bi c'est c'est les signataires aujourd'hui président Diouf ci loolu na décision ne dootul wax di ci Sénégal président Diouf mosuñu ko dégg depuis qu'il a quitté le pouvoir ça fait quand même 24 ans presque dégguñu ko mois de juin dégguñu ko mois de mars aujourd'hui il dit qu'il va parler à la jeunesse oui est-ce que ça veut dire que waruñu leen dégg tamit. non bu leen neexee ñu exprimer wu. la euh, tradition ici mooy euh, les président bu ñu faloo ba folleeku duñu yëkkati seen kàddu ci na euh, doxalinu politique ci ci réew mi. est-ce que waruñoo jàngat mbir mi neneen ne ñoom bu ñu demee ba yëkkati seen kàddu mooy situation bi moo garaaw. non mais moom laay xam analyse laay def et je pense des faits li ma c'est des faits donc le président Diouf veut aujourd'hui se et parler à une population à majorité jeune qui n'ont pas connu. parce que notre population comme on l'a dit lors dernier recensement. Ah, il a le droit la parole là. non il a le droit non ah. j'ai pas dit qu'il n'a pas le Moi, je représente quoi dans ce pays Donc, j'ai, j'ai droit à la parole. Et deuxièmement, le président Ouad, le partie prenante. C'est-à-dire, aujourd'hui, Mouno Nek participé, il est aujourd'hui secrétaire général du Parti démocratique sénégalais. Si je me trompe, il est toujours. comment lui, il peut être jugé parti il hmm. est secrétaire général du Parti démocrate du Sénégal. dans ce processus actuellement de report des élections. Beneen chose bi aussi, dans le fond, dans le fond du document que aussi nañu respecter Sénégalais parce que on parle toujours mais, de manipulation mais, mais dans le fond waxtu bi jeex na dans le fond Abdoulaye Wade ak euh, Abdou Diouf amul lu ñu defantewul ci ci réew mi bi kii nekk président kii nekk opposition ay bakkan rot ci tey ñoom ñooy joxe leçon ñii fi nekk di euh, Macky ak Sonko ça veut que moytu leen affaire politique seen biir la ñoom ñooy reyante ñooy lekkante ku ci topp wala di ci xeex ba loru ci yaay perte am déet non loolu xam nañ ko les politiciens duñu moo tax dugguñu seen mbir et donc pour terminer juste pour dire très rapidement je pense que dans le fond mooy toujours dire que les gens sont manipulés et manipulables dans le document loolu la bind et parce que c'est manquer de yow damay atte xeex nga commencer par dire yaa tooñ parce que mënoo def dans un document de médiation nga ne la date des élections il faut ñu qu'on donc il un problème bi ils ont validé le report donc mënoo nekk damay def damay atte ba pare yow nga jël jël donc pour moi c'est c'est vraiment un hors sujet comme je l'ai tweeté quoi. jërëjëf docteur Abdoulaye Bousso jërëjëf aar sunu élection euh, seen marche bi ngeen bëggoon def tey préfet nee na mënul nekk euh, nee na ngeen bindaat kayit mu xool ko jërëjëf. merci Georges jëf soxna Nata. merci beaucoup Babacar Fall euh, Georges Dethié Diop ak docteur Abdoulaye Bousso Sène